mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi di leen ci baalu xaq tey ñaan sunu borom boole nu ci jéggal di leen jottale ay kàddu yu bawoo ci sëriñ bi nu koy ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal Cheikhul Xadim lépp mu matale ko nam ko bëggee te nu ànd koog moom di jiital ci nuyu bi ak ziyaar bi ak ndokkeel gi ki nu war a jiital ci lépp di cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom cig mbaaxam ak yërmandeem mu yàggalal nu ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu naalal sëriñ bi yëpp mu matale ko nam ko bëggee te nu nu ànd koog moom. di ko ñaanal sëriñ cheikh Ahmadou Mbacké mi fi nekkal sëriñ ay Chouaïbou ak mboolem njabootug sëriñ Touba yépp gannaaw loolu bokk yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant di leen gërëm. ci seen teewaay bii ngeen teew ngir dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ànd koog moom ak rafetal gi ngeen sax ci def ko seen seenu dëkkin ak moom muy sant yàlla bu baax ci boole gim ko boole ak dëkkandoo yu baax yu bëgg lu baax di ñaan sunu borom fay leen aw yiw may leen ak wér ak wërsëg wu yaatu wu ngeen mën a liggéeyale sëriñ bi te daje bii nu daje waat ko at yu baree bari ci barkeb Cheikhul Xadim gannaaw loolu nag nee na mi ngi fàttali lim nu baaxoo fàttali te muy loo xam ne foofu waaye nekk te nekkal fa sëriñ bi ña nga nekkal war nga leen koy fàttali te moo di la sëriñ bi nekkoon ak ñamu nekkaloon te loolu moo andi ci àddina te moo fi bàyyi te muy jaamu yàlla sunu borom tabaraka wa taala ci sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nu ko sëriñ bi digale ci biir xutba bi wax ne mi ngi nuy digal ci bis bii nga xam ne sunna la su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële woon ca sayidina ibrahima alayhi salaam nu maase sant ci yàlla ndax li mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak wu xeetam wax ne mi ngi nuy digal ci bis bii ak ci gannaaw bis bii nu bañ a teqalikoo ak lil nu tànnal ci jikko ak i pas-pas ak i wax ak i jëf ngir jëmmi yàlla mu dellu wax ne mi ngi nuy wattandikuloo ci bis bii ak ci gannaaw bis bii jëf lenn lu bokkul ak lil nu tànnal ci jaamu ak i aada ndax li nu yàlla tànnal moo ëmb texek àddina ak àllaaxira nee na ka texe moo di ka jublu yàlla sunu borom tabaraka wa taala te gëstuwul lu dul moom ka texee di nag moo di ka cheytaane wammat jëme ko ca la ko neex mu wax ne sunu borom nee na lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andil jàpp leen ko ngoy leen ko téye leen ko wa ma aataakum rasulu fa xudu te xam ne lu waaye jëf ci lu baax lu mu tuuti tuuti donte fepp la dana gis payga fa man yaamal mithqaala darratin xayra yara nee na mi ngi nuy dénk ngir jëmmi yàlla mi ko fegal noonu yu iñaan yi ñu bañ a teqlikoo mukk ak li nu tànnal ndax teqalikoo ak moom moo nuy indi li mettit ak i njàqareem nee na lépp lu nu ak njubam leerul tere nanu jëf ko bu nu ko moytoo dananu am dananu amub yool ak ngërëm akuk pay nee na bu nu sàkkoo tedd nga ci lu dul ragal yàlla ndax dëggi-dëggi tedd nga moo ragal yàlla nee ku woon gannaaw yàlla boroomam mu bàyyi ko bakkanam ak bànneexam ku dëgmal yàlla nag ànd ak wasiila yàlla womatal ko lépp lu mu yéeg jëm ci lu rafet nee nu jaamu ji yàlla nim nu ko digalee wax ne yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum te nu ragal yàlla fu nu mën a nekk wax lu baax wala ñu noppi ni ñu ko sallallahu alayhi wa sallam digalee wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut bokk yi lii la nu sëriñ bi digal muy loo xam ne ku amub seetlu tuuti da nga xam li nuy musal diirub jamono tënk na ko ci biir kon sëriñ bi nee mingi ngi nuy laabire nu tënku ci ndigal yi nu sëriñ bi digal ci xutba bi te tey sunuy làmmiñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi cëram yépp bu ñu xëyee dañuy jàmbat làmmiñ ne ko ragalal yàlla ci nun boo jubee rek nu jub waaye boo dëngee rek nu dëng ida asbaxa alabdu fa in alaadaa tashtaki ila allisaan fa taqulu ittaqi llaha fiina fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna nee na itam ñu gën jàppale cheikh el Mountakha ci dekkum dekkum Serigne Touba bu sel bi ndax talibé yi sonn nañu lool ndax jëlkat yi waxtu wone ñi ngi dugg ci kër yi ak kay yi di fab seeni alal di len fitnal ak te du mujj fenn nee karangé li nak serigne bi ñaan nako fi kon na sunum xel dal bu baaxa baax تايد يالا نانغول نكوكو نم كون نم كون سيدنا ابراهيم عليه السلام في مكه المكرمه ومسكني سلم من الفجار وامن على الاهل بما ان جاري نانا ميغي نيانيت واي ومالي ني فاتليكو واي نياكي امنا ني سوخلا وو ديمبال لول رواتنا سي جامونو يي nee na mi ngi masawu itam ñi nga xam ne ndoxum taw bi dafa baaxoo nangu seeni kër di leen dénk muñ di leen wax ne istaayinu bi sabri wa salaa inna allaha maa sabirin di ñaan képp ku leen mën a faj ngir yàlla mu def ko te xam ne man amila saalihan fari li nafsi nee na itam mi ngi nuy fàttali kabar yi nu digle ci fan yii te war koo tàmbali ci tisbaaruk tey jii mu war a mat altine ci suba inchaa allahu taala gannaaw julik farata gune te moo di allahu akbar ñetti yoon teg ca kabira mooy bi gën a yomb nee na itam borom kër yi mi ngi di ñaan ak imam yi ñu gëna jàppale sëriñ bi ci li muy tere ci dëkk bi diko fatali nit ñi na jigen ñi ci ciol gi ak gone yi ci football bi ndax li nu wara tere bu nu ko terewul li sunu borom di tege bu dikké suñu ñaan du ko mën a teggi walladi nafsi biyadihi la taamurunna bilmaarufi wala tanhawunna an almunkar aw la yushikunna allahu an yabcasa alaykum caqaban minhu summa tadcuuna fala yustajabu lakum looloo tax sëriñ bi waxoon ñu ne di yàlla barab buñ ko dul defee bu ne bu fa jàmm njëkkee yi du fa mujj kon nag ab taalibe bu bëggee lu ko sëriñam ñaanal mu gis ko lam ko digal da koy def lam ko tere mu ba ko ndax ab sëriñ bu mat la mu doon du digle lu yàlla diglewul du tere itam lu yàlla terewul te sëriñ bi kenn sikki sàkkawul gaa yu baax yi sax sikki sàkkawuñ ak matam lim doon kon nanu góorgóorlu bàyyi li nu sëriñ bi tere ci dëkk bi tey def lim nu digal te ànd koog njaboot gi te lépp yàlla jëmmi yàlla ji rek tax yal na nu yàlla musal yal na nu yàlla aar yal yàlla sàmm yal yàlla dimbale الشيخ الخديم يصح دك تي جامو يالا سنه يونت بي الله عليه وسلم اك لغيل كو تماينو نويت بو باركل في سونو سانغ بو الشيخ محمد المنتقى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته